généraux yi ni ci biir réew mi yàlla bàyyi leen fii nu wér Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour xalif général des Tidianes ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko ndokkeel bu baax a baax a baax nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu wér mu yàgg fi lool ñaanal mboolem xalif généraux yi ne ci biir réew mi yàlla bàyyi leen fii ñaanal njiitu réew mi ñaanal borom kër gi président Youssou Ndour noonu la ñoo ñaanale sunu Serigne Serigne Maodo Sy Abdoul Aziz Serigne Babacar Abdoul Aziz Serigne Mansour Abdoul Aziz ñaanal nañ leen njabootu Seydi El Hadji Malick gépp bàyyiwunu kenn mbokk yi di leen ndokkeel ci weer wile di leen ndokkeel ci waxtu wile di leen ndokkeel ci weer wi nga xam ni mooy rabiul awal weeru gàmmu ci la Seydina Muhammad gane àddina moom yonent bi alayhi salaatu wa ci weer wi nga xam ni. wax naa la ni la keroog bi mu dikkee jamono da caa yëkkati ko keroog bi mu dikkee jamono da caa puukariw moom dikku sallallahu alayhi wa sallam kon nu ngi ñaan sunu mbëggeel ci moom moom yonent bi yàlla ko yàlla gën a dolli ndax koo xam ni bëgg ko doy na sauvetage u àddina ak alax te doo julli ci moom mukk benn yoon te yàlla defal ci yow fukki yoon nga julli ci moom fukki yoon yàlla julli ci yow téeméeri yoon nga julli ci moom téeméeri yoon yàlla def ci yow junni yoon mbokk yi bi dafa am te mooy rasulullah gi nanu ko fonk nanu ko màggal nanu ko bëgg nanu ko cëral alquran ci moom la wàcc ñi dàq jàng ci àddina jël nañu alquran def nañu ay séminaire xool nanu xam ni lii du waxi nit waxi yàlla te yàllaa ko wax ci alxuraan ni ko maa la yónni ngay bégalaate maa la yónni ngay aji seede waaye maa la yónni ku la topp man la topp wa man yuti illaa wa rasulahu faqad faaza fawzan aziman yàlla nee na ku ma topp man sunu borom man yàlla kuma ma man yàlla topp yonent bi alayhi salaatu wa salaam kooku gañe na ako ngañaay waaw ngi ci téere bi di xilaasu zahab fi siiratil xayril arab li aalimin allaama wa raawiti lfahaama xaamili liwaa il irfaan bayna albiidi wa sudaan bal saaxibi lbaa il maaruuf bayna alxaasi wa daani Mawlana Seydi El Hadji Malick Ibn Ousmane dal nañ ko yàlla fayal bàyyiwul dara ci dundu yonent bi Alaaji Mansuur daf ko waxoon ni ko bàyyi yow yaay actualité. actualité ne ko yaay actualité ne ko waa naadiratul waxti ma in yura masilun yuqaaribuha bal walam ay bal walam yujat ne ko yaay actualité mooy bis bu ne lay xew ci bis ba bàyyi wax nga ko ca da ko dund ak nun war a dund yonent bi alayhi salaatu wasalaam bis bu mu tombeel lu ñëw ca bis ba ci dund rasulullah gi Seydil Hadji Malick wax nanu ko kon bii jamono yow mi may topp fan yi nga xam fi nu yam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma nga ca biir yaayam di Amina wax naa la yonent yuy ñëw ziar si Amina wax naa la lu dëkkoon xoroy tey dukkat keroog big na wax naa la yàlla digal la jigéen ñëpp ci ñu jur góor waaye mbokk yi nag nu wax moom sallallahu alayhi wa bi muy ñëw ca juddu ga lu xew lu xew moo la ji Malick Maodo ne xam naa ko Xaaji Malick nii keroog bi njol màkk di ñëw. yaayam juróom-ñeenti weer Seydil Xaaji Malick nee na li jigéen di yëg ci matu yaayu njool màkk yëgu ko waaye ñi ko doon rawale di ñoom Safa ak ñoom Maymuna keroog am na lu nu gis keroog kenn ku ci nekk jaxle ci bii liir waaye Amina ci boppam moom moo nettalil boppam moom yaay yorantu bi nee na ëmb naa sama doom ji juróom-ñeenti weer bis bu ne gis naa kimtaan ëmb naa sama doom ji juróom-ñeenti weer weer wu ne gis naa kimtaan mais li ma gën a yéem ci moom mooy keroog bi muy gën àddina bi muy juddu bi ah mbokk yi waajaa ngay bëgg a ñëw nag waajaa ngay bëgg ñëw. jamono nga koy teeru waaye bul fàtte ne nag Abdoulaye Baye ba dee na bi mu amee ñaari weer ci biiru yaayam waaw euh, waxtaan yeeg passé maa ngi doon wax ne ndaw ñi nañu góorgóorlu tey jub di liggéey waaw nañu di daani seen doole. parce que Abdoulahi biñ ko mayee Amina daf ni ko damay damay liggéey mu ni ko foo jëm di jaay mu ni ko Saam laa jëm am na lu ma dencoon damay dem jënd marchandise jaay jënd indi. Amina na ko me mais di jaay toogal ci dëkk bi nga def ko mu ni ko mais il faut que ma dem xam ngeen ni boobu avion amul oto amul gileem lañ daan war mbaa fas yëpp ci seen i marchandise départ jëm ñii. dañuy dox Abdullahi ne ko damay dem mu ko lu tax mu ne ko dama bëgg ba mu ñëwee teral la moo tax jigéen dañ koy teral su ma ñëwee jënd la soie dama ñëwee jënd lay or su ma ñëwee meuble la sa néeg bi xam nga lu ko Amina tontu daf ne ko xëy sa xëy jàkkaarloog sa kanam gi mu ma dàqal meuble. waa jigéen ñi jigéen ñi borom këram amagul meuble mu dëkki xuloo jigéen ji jëkkëram amul lu mu jëndee or mu dëkki xuloo jigéen ji jëkkëram amul lu mu ko jox pour mu jënd yére mu dëkki xuloo amina ni ko sa mbaax gi na ci yow waaye est-ce que góor góor gu meloon ni Abdullahi am na tedd nga gi na ci yow xëy jàkkaarloog sa bëñ yii moo ma dàqal or moo ma dàqal suwaa Abdoulaye ne ko nag abi bàyyil ma dem ndax jigéen dañ koy jaral ah mbokk yi Abdoulaye dem mook Amina benn weer lañu ñu dund un mois lañ dund ñoom ñaar bi beneen weer bii ñëw njool màkk nekk ci biiru yaayam ndax bul fàttali guddi gi ñu ko joxe Amina ca la leer ga jógee ci mu dem ci biiru Amina kon un mois la ñu dund diggante dem beek wàññeeku bi ba ba ca Abwa un mois la muy deux mois ndax Abdoulaye mi ngi deewee ci dëkk bu ñu naan jaay na ba jaral moo ngay dégg ñu ne Abdoulaye Mate gëleen gër jaay na ba jaral pape rasulullah jënd na wàññeeku na bi muy ak midin biir buy metti bu metti dab Abdoulaye mu ni waa caravane bi jiitu leen ma ngeen wax sama baay Abdul Muttalib dama jaar fii ci mbir ndax am na fay mbokk su ma wàññi su ma tanee danaa ñëw bi waa Makka accès Abdul Mutalib ni ana Abdullahi ñu ne ko maga Médine kat dafa feebar waaye bu wéree dina ñëw mu woo xaaris taawam ne ko demal ci Abdullahi nga seeti ko ànd ak ñun ñëw bi xaaris départ Makkatal Mukarram di jëli Abdullahi fekk Abdullahi tane na moom itam génn midin bi ñibbi ci Makkatal Mukarram bi mu àggee ci dëkk bu ñu naan Abwa feebaru sukuraat dab ko papay Seydina Muhammad dee alaaji maa dégg nu ko wax xabaa bi Abwa Abdullahi xëy na ma daa lil hamli haza ashhirul kalimi ay waay góor gi yàlla nañ ko yàlla fayal yaa tax ñu dund yonent bi yaa tax ñu bëgg rasulullah gi yaa tax ñu xam yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam yi maamam xam askanam xam jaar-jaaram yaa tax ñu jeex takk ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla nañ ñu la yàlla fayal moom si alxaaji Maalik Abdoulaye dee na kon deux mois ci biiru yaayam ñu ñëw wax ko Amina. benn weer la dund ak moom deux mois Amina toog ca kër ga muñ moo tax jigéen bu mettee da ngay muñ bu méttee da muñ waaw yi Abdullahi dem na Amina téye na liir ba téye na ëmb ba sàmm na ko moom yaa yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog nag bi mu amee juróom-ñeenti weer fukki fanak ak ñaar ci rabiul awal tombek 20 avril Seydil Hadji Malick wax ñu ci xilaasu zëhëb ne Moustapha ngay gën a àddina waaye Maodo nee na keroog bi mu juddoo position bi Moustapha njëkk a def xam naa ko ñu ne ko si lu mu def mu ni daa judd rek moom yonent bi sukk ñaari bët ëmmam it ab liir tàllal benn baaraam ba banque ñeenti baaraam ya jublu penku moo laa ji Malick lu xew mu ne dafa wax moom liir boobu lu mu wax naa ko dani jàllaala Haaj Malik ne waqiila sabbaha am na ñu ni dañu allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila Maodo ne yuumi ma ngay junju asababata baaraamu sànnikaay ba miqbaadan mbir moom muy aji ngëpp asaabiahu yeneen baaraam ya mislal musabbihi mel ni kuy sàbbaal yarnu di ja al ulwa kawe zaakima mi muy boromu yitte moom liir boobu moom sallallahu alayhi wa sallam alaaji bisaan doy ci caméra bu subaa jàmm. daarul xabiibi xulubuna tahwaaha. daarul xabiibi xulubuna tahwaaha. daarul xabiibi xulubuna tahwaaha.